La dépêche.sn, le tour du monde en un clic, service commercial 77 686 60 20 ou le 77 152 61 97, école coranique Nasrul Ouda à Medina Sabah, une éducation islamique de qualité et une mémorisation rapide du Coran pour vos enfants, en module internant ou externant, au téléphone 77 412 74 53 ou le 78 354 07 76 vous offre votre émission waxtaanu koor أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله rahim الرحيم الحمد لله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على من قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه السبيل أو كما قال وبعد أيها المشاهدون الكرام بهذه القناة لدى تش تيفي أحييكم جميعا داخل البلاد وخارجها بأفضل التحية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokku julit yu tedd yi ñuy suivre te dañuy suivre ci seen seen bi ñu tuddee la Dépêche TV gannaaw bu ñu sante borom bi tabaraka wa taala ñi fas yéene dellu siwaat ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne moom lañ baaxoo di ko ànd ak yéen heure bu jot ci waxtu wi te muy aju ci koor ak ay atem gannaaw bu ñu leen nuyoo ndokkeel leen ziar leen ñaane leen jàmm ñaane leen koor bu ñu nangu ñu ngi nuyu itam rédaction bi nga xam ne ñoo ngànk kër gi si njiital Mouhamed Senior Diop ak mboolem équipe bu am solo bi nga xam ne ñoom lay àndal ci liggéey bi di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawfiq di leen ñaanal taysir ñi fas yéene dellusiwaat mbokk yi ci suñu neuvième numéro mu mel ni démb bu ñu fi jógee ko ñi ngi waxtaan ak yow ci li nga xam ne ni maanaam dafay waral fay ci aji xoor ji su ko defee mu mel nii boo gisee ni ñuy séparé masala yi dañuy bañ toujours doomu aadama bi wala nit ki nga xam ne mu ngi koy suivre di jaxase masala yi moo tax rek toujours ñi koy séparé donte dangay gis ne dafay xaw a jege wante waaye dana am différence euh, démb dañ waxoon li nga xam ne dafay waral fay tey nag liñ lay indil mooy loo xam ne ni maanaam dafay waral fay ba noppi kafaara maanaam euh, fay pilis kafaara loolu lañ bëgg indi ak yow tey mbokk yi juróom yëf mu ngi nii yoo xam ne nii képp koo xam ne nii aji xoor la saa boo xamee ni xoor na ba juróom yëf yi ñu bëgg a wax dal ko su boobaa pen bi dafay gën a diis mooy lu ñuy tuddee fay pilis mooy dafay fay ba noppi teg ca kafaara su ko defee loolu danañ ci ñëw incha allah rabbi itam leeral kafaara itam nan lay demee mbok yi juróomi yëf yi nga xamne ne dafay waral kafara mom la borom téere bi wax naan wa xamsatun fi amdiha tukaffir illa bi ta'wil qaribin yu'azzar fi ramadan qattun bi ikhtiyar farafun farafuhu niyyati bin nahar aw akilan aw shurban bi fammin amdan aw min jimaain aw maniyin aw maniyin qasdan juróom yi nga xamne da fay waral kafara, ci aju hoji sabu bu ko defé ta fekk ba mu koy def moo ko tey yi juróom yooyu lañu bëgg dik ak yaw mbokk mi bu fekké na dal juróom yi ñu bëgg wax ki ko def moo ko tey yi na dana fay dana kafara su boobaa juróom yoy bi ci ñak moy nit ko xamanteni ni dafa yéene woon xor ba ci gu wër ko te ci kanam mu may melni dafa wax li olof wax ma waxon waxet wala ma doon jëf jëfet te mooy lu ñu tuddee rafon niya te mooy màbb sag yéene maa yéene woon xoor weeru koor léegi génn naa ci ba seet wecc su boobaa koor googa borom def loola yéene maanaam màbbu jëfam jooju su boobaa koor googa yàqu na borom dana fay dana kafaara ndax atteb koo xamante ne ku murtat dang lay taxawee boobu mooy bi njëkk mooy màbbu yéene ci bëccëgu weeru koor ñaareel ba ci yi nga xam ne dafay nit koo xamante dafa xoor ba noppi itam lekk ci bëccëgu weeru koor te ba muy lekk moo ko tey wóor na ko ne lii bëccëgu weeru koor la waaye wóor na ko itam weeru koor àndut ak lekk àndut ak naan mu def ko ci tayeef kon su sant mooy mu fay ba noppi kafaara ñetteel koo xam ne dafa ci bëccëgu weeru koor ak lu mën a naan te fekk ba naan moo tey kooku itam liy àtteem mooy dafay fay dafay kafaara kon ñett nga noonu ñaareel ba yi nga xam ne dafay waral fay waral kafaara mooy nit koo xamante ne nii dafa ànd ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor te maanaam sariha mayu ko jamono boobu muy ànd ak moom ci bëccëgu weeru koor kon su boobaa nit ki su ko defee ci tayeef su boobaa li ko shariatul mooy koor yàqu weeru koor bi passé dana fay bis booba waaye itam dana kafaara juróomeel bi nga xam ne dafay waral fay waral kafaara mooy nit koo xam ne dafa woor ci bëccëgu weeru koor nekk di foofu ak soxnaam ba ma niiw génn moo tax maa ngi lay wax sax sama njëlbeen wax ne boo gisee ni ñuy euh, détaché maanaam di séparé masala yi dañuy bañ mu jaxasoo démb maa ngi doon wax ne la su fekkee ne dafa am ndox mu ñuy tuddee masiw mooy liquide boobu njëkk a génn boobu rek moo génn kon su boobaa kooku atteem mooy dafay fay rek mais du kafaara am maanaam bu bu mag bi génn te mooy ma niiw su boobaa kii nag mooy waral fay waral kafaara mooy juróomeel bi mooy góor goo xamante ne nii nit kii fexe na di foog soxnaam ci bëccëg weeru koor ba génnee man yu donte sax maanaam sëyut ak soxna si waaye fana ba mën yu génn su boobaa lu chariatul islam yi sant rawatina mazhabu imaamu malikin mooy kooku kooram yàqu na dana fay bis booba en même temps dana ko fay waaye itam dafay fay daf see plus bu ñu demee ba weeru koor bi jeex mu fay bu kafaara maanaam goo xamante ne mooy nekk beneen pen bi ñu koy teg ngir jëf jooju nga xam ne def na ko ci bëccëgu weeru koor te xormaalut weer wi kon juróomi yëf yi mooy yi nga xamante ne dafay yàq xoor ba noppi itam di waral kafaara kon su ko defee lii mooy li nga xamante ne dafay waral kafaara su fekkee ne aji def ji daal def na yii ma la wax wala mu def ci benn su boobaa te nekkul tawilu qarib mooy koo xam ne foogoo na ne mën na nekk te fekk loola mënul nekk su boobaa fekkee ne koo xamante nag ab jaahil la boo xam ne xamul ci dara dafa foogoo ne li dagan na rek moom du fay du kafaara dafay fay rek waaye nag comme ni ma la ko waxee koo xam ne danga ko def ci tayaf ci fay da ngay kafaara su ko defee ne ana lan mooy kafaara kafaara mooy comme def nga yi ñu la wax su ka kafaara ge moy gannaaw bo fayé bis booba nga xamanteni ni def nga ci loolu nga ci def da ngay xoral yeneen ñaari wër yo xamne da ngay xor manam toftale ko tot manam du nek nak damay xoor tey jërte ñaari wër yo xamne ni yu toftalo lay doon nga wër nga xor ko gannaaw weer koor yu jeexee foo ko mën a xooree si rek baxna way waaye xalaa ko da nga xor ñaari wër yu toftalo kon loolu moy benn ci kafara kafara ñetti yef la benn bi mo nek noonu ñaarel ba nga lehel lu tolo juroom juróom benn fukki miskeen yoo xam ne da leen jox kenn ko nekk mu lekk ba suur maanaam lu ko xam ne dana ko mën a lekk ba suur dana ko mën dana si mën a añ añ boo xam ne bu baax a baax a baax la su boobaa mu leel si lu toll juróom-benn fukki miskin mu yëgati jox leen ñi lekk naan ba di loola mooy ñaareel ba ñaareelu position bi. ñenteel ba mooy su fekkee ne jamono boo xam ne nii jaam am na nga goreel lu ñu tuddee jaam su boobaa. Euh, boobu tam mooy troisième bi waaye ñett yi nag du sart ne da ngay def bii soo ko mën a def bii bu dee ci weeru weeru koor nga xam ne da war a kafaara dañ lay tànnloo yaay xool bu la neex rek nga def ko yaay xool bi nga mën rek su ko defee nga choisir ko waaye nag bëgg nañ ci fekkee ne ko mel ni borom alal la nga xam ne maanaam leexal juróom benn fukki miskin du dara mu def toxalu dem ci li ñu tuddee xoor ñaari weer su boobaa itam loolu dana nekk loo xam ne li gën la donte itam lee baax na euh, yi daal xam yii ñu la wax nii mooy yi nga xam ne nii aji def ci saa bu ko defee dafay waral lii di kafaara kon su ko defee xam naa ne suñu waxtaanu tey wi loolu rek lay doon mooy ana yan may waral kafaara ñi bat ñi fàttalewaat ko mbokk yi yi waral kafaara daal juróomi yëf la bi si njëkk mooy nit koo xam ne dafa màbbu yéenam ci bëccëgu weeru koor ñaareel ba nit ku lekk ci bëccëgu weeru koor tayu ko ñetteel ba nit ku naan ci bëccëgu weeru koor tey ko ñeenteel ba mooy koo xam ne dafa ànd ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor te moo ko tey te bu bës sharia mayitu ko juróomeel ba mooy koo xamante ni dafa def dafa fexe ba mën yu génn ci moom ci bëccëgu weeru koor maanaam moo xam te doon foo moo xam te doon fóonante wala dafa am doon xool mën yu génn ci moom su boobaa lay atteem mooy day fay day kafaara kon su ko defee lii mooy li ñu indi doon tey ñu wax la ne kafaara nag ñetti yëf yi li koy defee nit ki mooy tànn rek bu ko ci neex benn mu xoor ñaari weer yi yu toftaloo wala mu leyal juróom benn fukki miskin wala mu goreel jaam su fekkee ne jaam am na kon mbokk yi lii lañ leen indiloon tey seen waxtaan wi seen seen bii di laa Dépêche TV di nuyuwaat di siyaare mbokk yëpp di la ñaanal koor jàmm ak lépp lu suñu borom diggee ci koor mu defal ñu ko defal leen ko di leen joxaat rendez-vous suba ci kattanu suñu borom insha allahu rabbi lu si jub ci yàlla lu si dëgg lu si dëng ngeen jéggal ñu ko yàlla yàlla boole ki nga xam ne bu ñu jégee wax seet la jégg naa ñu topp ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu